mbokk Samagal TV euh, ñu ngi fii ci euh, première édition weekend d'élevage macha allah bu adep euh, tay nak ñu ngi taxaw ci bergerie boo xam ni ñu ngi koy bergerie Kouna Ndiaye borom nag mi ngi jàkkaarloo xaalis mais dañu présenté sujet yi kilifa bi lay nuyu. maa lay ziar. Cissé man la Abdou Seck Abdou Latif Seck quoi ah, ah, dëkk Bambey uh-huh. di élevé fii si Bambey. macha allah ñu ngi fii tey xarit mm-hmm. Xaadim euh, box bi lan moo fi nekk. waaw box bi euh, kii kii doomu kii la surtout Napoléon la. Uh-huh. doomu Bonaparte. Uh-huh. ak euh, benn famille bi wax Binta Sarr. Binta Sarr di doom si di sëtu Cheikh Massouf Bass. macha allah waaw Binta Sarr doomu Cheikh Diop kii la Cheikh euh, Bass Diop. Mhm. waaw di doomu Cheikh Massouf Bass. fu mu jógee moom. Géejawaay. dama ko recruté. dama ko recruté si grand bi ñuy wax grand Goro Seck. ba mu am ñaata mois. bi boobu mi ngi am 6 mois. 6 mois waaw instant 14 mois. Ah, mais d'or faut qu'on y a Machallah. 14 mois production juru Si mo jur mbote bi. Mo jur mbote bi. Famel bi wa agnal bi ngay gis ni. Agnal bi mi dal. Waaw. Bu ndaw OK dom ki la ci Diouf. Diouf dom Cheikh. Mo nek na le tam. Eliaji. Mom tam bobu noir bobu. Eliaji. Moy madame Sar. Waaw, madame madame Sarr aussi euh, mi ngi jógee sama benn collègue bu ñuy wax Mamadou Sarr uh-huh. euh, Kër Massar waaw moom doomu Mbay Juuf la Mbay Juuf doomu Cheikh Anta uh-huh. yaay di dom kilifa kilifa di doomu Bolt waaw waaw bi nag euh, dem na à kii parce bi may quatrième porté ma waaw benn technique bi boobu mooy novelas novelas di doomu professeur Mbodj professeur Mbodj di doomu Saloum professeur Ndoye bu Kër Moussa. bu Kër waaw ah, macha <laughs> mooy oh, taawam famille mooy taaw professeur Mbodj. Ah, ki mooy taawam. waaw may na moom man la si njëkk a may tëb. <laughs> macha oh. <laughs> eh. mooy espoir mu ñëwee bi bi mu ñëwee ah, Adel teel a daanu la la ñuy jooy. macha kooku Saalum la woon <laughs> waaw Saalum la moom. jeex tàkk macha allah kii moom mi ngi ci troisième porté. troisième porté waaw bi mooy troisième porté. waaw jox ma keneen kii. waaw teneen po kii mooy uh-huh. euh, <laughs> moom xaadim moom ko gën a xam. Ah. <laughs> produit kii xaadim moom ko gën a xam. macha allah. waaw si xaadim euh, laa ko la la la bi jaaree. ok seen moo ko jox. seen waaw doomu galacti kii doomu galacticos la. ok euh, ak euh, réew mi ah. waaw. doomu yaay ji waaw la aussi. macha allah waaw. ñu production ba nag gis naa fa ay añal bi mooy euh, doomu réew mi ma la teewloo noonu galactique bi. moo jur bi ak ben eh, mal bi ñu noonu moo jur moo jur waaw moo jur ban mal bi ak ban mal ak ma ak mal maal bi ñu wax prési ok prési nekkoon eh, doomu préfet uh-huh. non doomu doomu xarañ di mos xarañ doomu uh-huh. préfet uh-huh. waaw macha allah mu am ñaata moom moom nag mi ngi am 6 mois amagul rakk amagul rakk amagul rakk ani keneen waaw jamono tëng yi moom rafet nañ wala ñu jël tëng rek. waaw tëng waaw boobu mooy Sey Diagne. mooy Sey waaw. kii doomu kan la. kii tamit doomu prési la. maal boobu ma lay doon wax ne surtout préfet la. ak sama benn fixé sans fixé coloré. ok parce que dama jël coloré di doomu musaa Yade. Moussa Yade Moussa Yade di Birame 2. waaw léegi dama jëloon benn doomu Moussa Yade boobu boole koog benn doomu Bosco bu jigéen euh, ma jëlaat doom bu jigéen boobu tegaat ko si euh, si kii coloré léegi nag coloré doom ku jigéen bu jigéen boobu laa tegaat si mu jur kii waaw allah waaw boobu mooy euh, Mami Badiane Mami Badiane waaw mami badiane kii bi ma la wax ne Cheikh Anta la Mbaye Diouf la doomu Mbaye Diouf la di Cheikh Anta kii sëtam la boo xool yaay ji mooy doomu Mbaye Diouf dafa tëb woon nag indaale waaw daf ko tëb woon indaale si sama copain boobu kii Mamadou Sarr Kër Massar waaw non yaay ji laa dafa tëboon indaale mu wàcce kii ci kër gi. ok kii mu kii moom mi ngi si sept mois. tëbu am na rak waaw tëbu na nii. maal bi. ñebe bi. mooy euh, surtout coloré. moom si production coloré yi la bokk. macha allah waaw. la ak surtout surtout surtout coloré di du di musaayaat di musaayaat di biram te. da nekkaat sët aussi si bosko ndax yaay ji doomu bosko bi moo ko jur waaw li mu boolee moom Moussa mën naa la la Birame de lañ deux fois ni ko gars yi waxee Birame 2 cent franc deux fois am na ko de fois waaw ñëpp tëbu nañ. ñëpp tëbu nañ ci maal bi. ci maal waaw nga xaar production bi. macha allah. galaatu ñuy dafa gaañu woon bi mu nekkee mbote. Ah, si gaañoon bu nekkee mbote. waaw wér na moom sëy. bu baax. incha allah waaw mais est ce que am ngeen yaakaar ni karo bi na ñëwaat. waaw loolu am na ci waaw waaw vétérinaire bi wax na ko. nee karo bi na ñëwaat. dina ñëwaat macha allah incha allah. il ma keneen bi. voilà. waaw kii jeune mâle bi. moom it euh, préfet bi moom la doomu kii surtout préfet bi bu góor boobu moo ko jur yaay ji yaay ji euh, surtout Flavia la mooy séeréer benn sang bu ma benn grand Souleymane uh-huh. moom mi ngi si aussi mu ngi dugg si cinq six mois <coughs> loolu mooy exposition bi euh, waaw weekend de l'élevage bi nag satisfaction parce que ñu bëri koo wax ne lii ba am na Bambey dañ naan gëmuñu ko lii amutoon Bambey mm-hmm. waaw malgré que ne tey ji conditions yi c'est difficile wax dëgg yàlla saa a demandé beaucoup de moyens mais une première édition nga génn lii moom sant aménagé lii box bi waaw box yi moom sant yàlla sant yàlla am nañ ci satisfaction bu baax a baax a baax lew na la 77 eh, téléphone bi 77 457 79 49. waaw di la remercier yooyu Cissé wax dëgg yàlla gis nañ sa taxawaay si élevage bi mënoon nga ñoo xeeb parce que da nga naan waaw Bambey sori na <laughs> ñii première édition la c'est eh. pas évident c'est eh. pas évident quand même mais ñu ne aussi ñu ngi remercier waa membre ADEB yëpp di remercier aussi suma sumay euh, collègue aussi waa Ampayel Euh, grâce à ay ay Mor Khoule Sagna Grand Zes. ñoom ñoo tax ñu demee nii ñu am courage bu génn. macha allah wax dëgg yàlla euh, di remercier population Bambey yëpp aussi. si taxawaay bi ak autorités yi aussi ñu ngi leen di tax euh, remercier bu baax a baax. macha allah autorité moom rafet na waaw rafet na trop. lii daal lañ doon xaar si ñoom aussi waaw parce que première édition moom yombul waaw waaw waaw dëgg yàlla loolu maire bi moo ñu ko defal gérer ñu sécurité aussi ah, dëgg yàlla moom moom ñu ngi koy remercier aussi waaw jërëjëf